Eh, asalaamaaleykum alxaaji Mbengue Diop ak Mame Ndokh TV mbokk yi gis ngeen ko mu ngi noonu eh, loolu mooy rob bi nga xamante ni tabaarakallaahu fii ci Tiwaawan bu Seydi El Hadji Malick Sy kan moo faatu doomi Seydi Mouhamadul Mansour borom daara ji sëñ si Sy Jamil tabarkalla di nit ku amoon njariñ koo xamante ni tabarkalla li gën a yéeme ci àddina mooy ni mu effacé wu woon tabarkalla di doomi Seydi Mouhamadul Mansour borom daara ji di doo sëtu Cheikh Seydi Aboubacar Sy di sëtu Cheikh Seydi El Hadji Malick Sy waaye kenn mënu koo waxal dara lu dul lan njàmbaare liggéey tabarakallahu ci xadara maamam bi jàppale leen tabarakallah ñi nga xamante ni ñooy taalibe yi mbokk yi fépp fu néew doole nekk ci àddina Serigne Moustapha Sy Jamil ibnu Seyd Mouhamadul Mansour borom daara ji jël na alalam def mbokk yi gis ngeen ko mu ngi noonu te yàlla def lépp lu doomu soxna di jàng sëriñ Moustapha Sy Jamil jàng na ko lépp loo xamante ni doomu soxna war na koo am sëriñ Moustapha Sy Jamil am na ko waaye nag dafa fas yéene woon nekk taalibe nekk ci suuf ci ci suufu papaam di tarbiya li nga xamante ni mooy ëttu maamam bi Cheikh Seydil Hadji Malick mbokk yi addina bépp nanu ànd ñaanal ko yàlla yàlla defal ko sutura mu fekk maamam ju tedd ja tabarakallahu cheikh sayid alhaaji malik si fekk maamam ja cheikh sayid aboubacar si mbokk yi may wax ni alhaaji mbégi Diop ak Mame ndox TV fii ci Tivaouane mbokk yi gis ngeen ni nga xamante ni ñooy taalibe sayid alhaaji malik si ni ñuy ñëwee ngir gunge ko tabarkalla li ko waral mooy pandémie bi sax moo waral ñu bari ñëw ñu ndax xalifa bi ci boppam moo tere ndajaloo bi waaye nag gis nga ngir cofeel ci Cheikh Seydil Hadji Malick si ngir cofeel ci Cheikh Seydi Aboubacar si ngir cofeel ci baayam Seydi Mouhamadul Mansour borom daara yi nga xamante ni tabaarakallaahu lu ne wax na ko ci ëttu Cheikh Seydil Hadji Malick si bi mbokk yi gis ngeen ko mu ngi noonu alxaaji mbégi Diop ak Mame Ndokh TV mbokk yi gis ngeen ko alxaaji Mbengue Diop ak Mame ndox TV ñuy ñaan yàlla yàlla ko yàlla yërëm te xare ko àjjana ci barki yonent bi mbokk yi mu ngi noonu alxaaji Mbengue Diop ak Mame Ndokh TV gis ngeen ko mu ngi noonu foofu lañ koy denc fi nga xamante ni fi lañ denc Seydou Mouhamadul Mansour borom daara yi mbokk yi gis ngeen ñi nga xamante ni ñooy taalibe Seydil Hadji Malick yi ñuy ñëwee mbokk yi mu ngi noonu Serigne Moustapha Sy Jamil di nit ku baax Serigne Moustapha Sy Jamil di doomi Seydil Mouhamadou Mansour borom daara yi tabaarakallah di koo xamante ni ñëpp la joxoon cër alalam boole ko woon kenn fu mu fekk new di doole dimbali ko fu mu fekk taalibe Seydil Hadji Malick dimbali la fu mu fekk ko bokk ci xadara bi dimbali la mbokk yi ñu ngi ñaan yàlla yàlla ko yàlla yóbbu ci àjjana ali yéen a mbokk yi gis ngeen ko mu ngi noonu taalibe Cheikh Seydil Hadji Malick yi la ñu ñëwee li ko waral mooy pandémie bi sax moo tax ñu baree baree baree baree bari ñëwnu waaye daal mbokk yi ñu leen wax ne depuis démb ñu ko tàgge ba tey kenn nelawatul ñëpp ngi yor seen kurus di ko ñaanal yàlla yàlla defal ko sutura li mu jëf ci àddina yàlla nag ko yàlla fay ci barke yonent bi alxaaji mbégi jëf ak mam ndox ci bi mbokk yi gis ngeen ko mu ngi noonu mbokk yi mu ngi noonu doomi Seydou Mouhamadul Mansour borom daara yi ca mbaax ga doomi Seydou Mouhamadul Mansour borom daara ji ca yaatu ga doomi Seydou Mouhamadul Mansour borom daara ji ca xam-xam ba doomi Seydou Mouhamadul Mansour borom daara ci bëgg nit taalibe Seydou El Hadj Malick yi doomi Seydou Mouhamadul Mansour borom daara yi ci bëgg taalibe Cheikhna Ahmad Tidiane Chérif yi doomu Seydou Mouhamadul Mansour borom daara yi ci bëgg xadar bi doomu Seydou Mouhamadul Mansour borom daara ci bëgg baaya yi nag baayam yi koo ci gis nga yaakaar ni moom la gën a bëgg ndeysaan bay wax ni démb bu mu faatoo gis naa ci benn mbokkam boo xamante ne benn xaritam ñu koy wax Paye Maodo Diop Maodo raw tabaarakallaahu di wax mbaaxam nga di wax ni mu doon dimbalee taalibe yi tabaarakalla ki nga xamante ni mooy sëñ Jamil xamante ni moo wuy ci boromam tey di Serigne Jamil bu Serigne Mansour si borom daara ji day nit ku baax sori ci ñun lool tabarkalla di ko xamante ni mbokk yi da daan dimbali néew di doole yi mbokk yi daan dimbali ñi nga xamante ni ñooy askan wi daan dimbali taalibe Cheikhuna Ahmad Tidiane Chérif yi mbokk yi daan dimbali taalibe Cheikh Seydil Hadji Malick ci wërsëg wi ko sunu borom jox mbokk yi mës naa dégg ci benn nit mu ni mu Sëriñ Mansour Sy Djamil mii faatu tey moo ko waxoon ni ko li ma yor ci àddina dama koy bokk ak doomu aadama yi li ma yor ci àddina duma ko denc dama koy bokk ak samay bokk li ma yor ci àddina ci wërsëg duma ko denc dama koy bokk ak ñi nga xamante ni mu ngi noonu mbokk yi dégg ngeen ko mu ngi noonu nit ñaa ngi noonu di ko wusifaal ñu ngi noonu di yëkkati salaatul fatiha ji mbokk yi ñu ñaab ñoo àndandoo déglu فقم وعلى آل قحله اللهم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على آله وعلى آله وصحبه سلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين mbokk yi gis ngeen ko mu ngi noonu jàng nañ salaatul fatiha bi ba pare tabarakallahu zikkaral ko lépp luñ daan defal maamam yi defal nañ ko ko tey mbokk yi dégg ngeen ko mu ngi noonu mbaax rek am solo sëriñ Moustapha si Djamil di doom ci Seydou Mouhamadou Mansour borom daara yi ca mbaax la sëriñ Moustapha Sy Djamil doomi Seydou Mouhamadou Mansour borom daara yi jéewén nga mbokk yi gis ngeen ko mu ngi noonu taalibe Cheikh Hadj Mari yëpp ñëw nañ li ko waral sax mooy pandémie bee tax tey Tiwaawan bu dul woon loolu kenn fi xaj ndax mbaaxam ndax jëfam ci xadar bi alxaaji mbégi jub ak mam ndox tv mbokk yi gis ngeen ko mu ngi noonu fi nu ko rob foofu la ñu denc bàyyam bu tedd ba borom limousine bi sëriñ Mansour si borom daara ji mbokk yi gis ngeen ko mu ngi noonu ci wetu maamam Cheikh Seydi Aboubacar si mbokk gis ngeen ko mu ngi noonu alxaaji mbégi jub ak mam ndox tv dégg ngeen nit ñi tàggali ko seen sago ku ne di ci kan ki nu ñàkk tey di nit ku rëy ci xadara bi tabaarakallaahu Seydi Mouhamadul Mansour borom daara yi nga xamante ni kii mooy taawam ca xombal mbokk yi gis ngeen ko mu ngi noonu allahu akbar mu ngi noonu kay gis nga ko mu ngi noonu alxaaji ko mu ngi noonu dégg ngeen kooku aalu bi muy aalu nee na Seydou Mouhamadou Mansour borom daara yi mu ngi doog a dem akbar inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mbokk yi mu ngi noonu kilifa yaa ngi noonu di génn alxaaji Mbégi Diop ak Mame Ndokh TV alxaaji Mbégi Diop ak Mame Ndokh TV mbokk yi mbokk yi gis ngeen ko mu ngi noonu taalibi Cheikh Alxaaji Malick yaa ngi noonu ñëpp ñëw taalibi Cheikh Seydil Alxaaji Malick yaa ngi noonu mbokk yi gis ngeen ko loolu ngeen di seen mooy fi nga xamante ni fi lañ denc Seyd Mouhamadou Mansour borom daara yi fi lañ denc tabarakallahu soxna Fat si Mansour mbokk yi gis ngeen ko tey foofu lañ def Serigne Moustapha si Jamil mais àddina bépp di jooy te noppeegunu mbokk yi alxaaji Mbengue Diop ak mam ndokki bi mbokk yi mu ngi noonu tey fépp sant si ñëw nga ci rob bi tabarkàlla mbokk yi gis ngeen ko mu ngi noonu mbokk yi gis ngeen ko mu ngi noonu Serigne Babacar Sy Mouhamadoul Mansour xalif général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mouhamadoul Mansour xalif général des Tidianes mu ngi noonu ci biir di rob tabaarakallahu doomam mbokk yi gis mbokk yi gis ngeen ko mu ngi noonu alxaaji Mbengue Diop ak Mame Ndokh TV inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mbokk yi bu ngeen paree bu kenn déconnecté na ngeen nu topp tabarkalla bu ñu paree dinañ interroger ñi nga xamante ni ñooy taalibe Seydil Hadji Malick yi nga xamante ni tabarkalla yàgg na noo séq ki nga xamante ni mooy sëñ Moustapha Sy Jamil Mbaax fii ci xadara Seydil Hadji Malick Japón. alxaaji Mbengue Diop ak Mame Ndokh TV mbokk yi dégg nga kooku li muy wax jamil yaa baax jamil yaa baax waaye jamil yaa baax moom tabarkalla jekk na ni bakkan ci kanam ndax surtout Seydi alxaaji Malick si surtout Cheikh Seydi Aboubacar si doomi Seydi Mouhamadul Mansour borom daara ji moom jekk na ni bakkan kanam ndax loolu rek la doon xam-xam tabarakallahu feese ko del tabarkalla jàmmaare léppam addinaam yëpp liggéey la ko def tabarkalla ñu ngi sëriñ Moustapha Sy Jamil yal na ko yàlla wanal ak baayam ba Seydou Mouhamadou ngi naanal sëriñ Moustapha Sy Jamil yal na ko yalla wanal ak maamam ja Cheikh Seydou Aboubacar Sy ñu ngi ñaanal sëriñ Moustapha Sy Jamil yal na ko yàlla wanal ak maamam ja Cheikh Seydou El Hadj Malick Sy Jamil ñu ngi koy ñaanal yàlla yal na ko yàlla teg ci loxob Cheikh Ahmada Tidiane Chérif ñu ngi ñaan ci barke Seydou El Hadj Malick yal na ko yàlla teg ci loxol yonent bi mu jox ko yàlla mu tebal ko ci àjjana aliina jëfam may na ko ko mbaaxam may na ko ko léppam may na ko simaari addina bépp ànd di la jooy si Malick yal na barkeel ko ndeysaan mbokk yi gis ngeen ko mu ngi noonu démb ci quatre heures du ba tey kenn nelaw démb ci quatre heures du ba tey kenn nelaw wallaay mbokk yi gis ngeen ko mu ngi noonu nit ku baax nit ku yiw nit ku am jom nit ku bëgg xadara maamam Seydil Hadji Malick si nit koo xamante ni tabaarakallahu njàmbaaram yëpp ci xadara bi la ko def wallahi alazim di ko def nag avec effacement bëggul ku ko xam bëggul ku ko wax bëggul ku wane ni mbaax mbaax yooyu moo koy def moom ma sëñ moom jamil bu Seydou Mouhamadou Mansour borom daara ji alxaaji Mbengue Diop ak mam ndox fi ci fii ci Tivaouane mbokk yi di leen wax ni leen tey dañoo am dis bu rëy ndax un grand perte la ñuy wax muy Serigne Moustapha Sy Jamil mu Seydou Mouhamadou Mansour borom daara ji yal na yàlla yërëm ko te barke maam Cheikh Seydou El Hadji Malick yal na yàlla yërëm ko ci barke maamam Cheikh Seydi Aboubacar si yal na yàlla yërëb ko ci barke maamam Cheikh Seydi Alxaaji Malick si mbokk yi alxaaji Mbégi Diop ak Mame Ndokh TV fii ci Tivaouane tey ci fi nga xamante ni tabarkalla tey fi la ñuy rob ki nga xamante ni mooy Serigne Moustapha Sy Jamil ci palaasu baayam bi lañ koy rob tey nga xam ne mbaax rek am solo mbokk yi Seydi Mouhamadou Mansour borom daara yi ca xam-xam ba Seydi Mouhamadou Mansour borom daara yi ca silwi sëga Seydou Mouhamadul Mansour borom daara yi ca xam-xam bu réy ba tabarkalla mbokk yi doon bàyyam ba mu jeex takk Cheikh Seydou si mbokk yi mu ngi noonu dégg ngeen noonu taalibe yi taqalikoo seen sago kenn ku ne di wax mbaaxu Serigne Moustapha Sy Jamil mbokk yi mu ngi noonu alxaaji mbé ngi jóg ak Mame Ndokh TV fii ci Tivaouane bi ñi nga xamante ni dañoo nekk Amérique ngi nekk Italie ñi nekk Asie ñi nekk Océanie ñëpp te yaakaar xadar bi tabarakallahu te mu ñu ñoo ñëw ñu leen di jàllaleel li nga xamante ni tabarakallahu moo fi xew tey ngir yàlla bëgg yàlla taas ñu ci seen barke ci barke yonent bi mbokk yi mi ngi noonu alxaaji Mbégi Jóob ak Mame Ndokh TV fii ci Tiwaawan mbokk yi gis ngeen ko mu ngi noonu fii ci xadara Cheikh Seydi alxaaji Malick Sy mbokk yi mi ngi noonu alxaaji Mbégi Jóob ak Mame Ndokh TV taalibe yëpp a tàggali koog sax waaye sunu borom rek mën sunu boroom rek man sunu boroom rek sañ yi tabarkalla mbokk yi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñoo ngi jàng alquran ji mbokk yi di def ay istixfar di def salaatu ala nabi mbokk yi di jàng ay latif di jàng alquran ngir yàlla ak jëmmi ji fi jóge ci tedd nga boobu mbokk yi alxaaji mbégi jóg ak mam mam ndox ti bi mbokk yi yal na yàlla xaare ko àjjana ci barke yonent bi ku ne amin yàlla nga fi yàgg ci barke Cheikh Seydou Malick mbokk yi